salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar raditu anil mawlaa Mbàkke dafay étape bu am solo lool ci yoonu murit ndax xala sayxul xadim gane àdduna Mbàkke Kajoor dafa doon étape boo xam ne étape bu am solo ci dunduk sëriñ Mbàkke Kajoor mooy barab bi yoonu murit sosoo gannaaw demuk sëñ Mbàkke mu ren cellule un fa wetam daaru salaam ngir bañ lu xeetoo ki ak i malaam. waaye daarul alimil xabiir mooy tur noonu la ko sëñ Tuubaa tuddee. ndax fii fii fii fii ñu tax nekk nii wax nañ ne Cheikh Abdou Khadre fi la gënee àdduna sëñ Murtala fi la gënee la yi nga xam ne moo ko sanc kon fii la jaayantee ak yonent bi ak boroomam. yoonu géej gi ci mu ci biir jàkka ji buur yàlla daal di signé jox yoneen ba mu signé gaaña daal di jiital Bamba kon Mbacke Bari lépp lépp lépp ci juróomi weer lañ koy tënk. fi ñu nekk mooy Gabon ñu ñëwal leen fii ci débarcadère bi nga xam ne fi la sëñ Tuubaa wàccoon 1895. sëriñ bi waxoon ne nag Gabon de. suul naa fa loo xam ne yàgg yàgg dara feeñ. yi nga xam ne xew na ci montagne sainte muy marale gi ñu ko marale woon ak garab gi doon ko jéem fetal te yàlla sottalu ko. loola tolloo woon ak bisub talaata. ñoo ngi fii fi Mayumba. dëkk bi nag di dëkk boo xam ne bi fi sëriñ bi di ñëw booba ni ñu ko waxee booba ñëw fi yombul waaye ci yoon ci yoonu ndox la jaar ba ñëw fi te mooy ginnaaw bi nga xamee ne eh, jógee na Libreville. mu mel ni nag am nay xas yu ràññiku yu mel ni Jaalibatu ko ci dex gi di la boo koy seet sax yi gën neex gën a gën a rafetum bind nga ko sëriñ bi nga xam ne booba climat bi taw bi bari bi ak li ñuy tuddee ay godd ak mëttu mëttu yi ak yi nga xam ne day matt yooyu bari woon na fi lool sëriñ bi doon jànkonteeg loolu lépp. Lambaram nag mooy dëkk bi nga xam ne fi la sëriñ bi mujj a nekk. li desoon ci tukkib géej gi fii la ko jeexale yàlla dogal na gànnaar nekk na fa ci béréb yu bari yu wuute ñu bari it fekk nañ ko fa yàlla dogal na it may yu baree baree bari am na ko ci gànnaar. bokk na ci béréb yi nga xam ne nekk na ko fa ca gën a siiw mooy Sarsara. jaarin daanaka lu baree bari lu mu taxawal ci ay mébétam injaazaat réalisation yi mu taxawal yëpp ci dundu jaarim la ko mane ndax dafa am dund ko istiqraar. gën euh, tabax bi ak li gën a indi daare kaamil bokk na ci Jurbel Sëñ Tuubaa baraag yi fa nekkoon yu bari lool yu ci bari ay téere la fa denc. bi da doon bind ngir jëfe ndigal suñu borom suñu borom moo ko jox ndigal ne ko bindal sëñ Tuubaa moo ko wax. def yëpp. muy sunu boroom sunu yënguti yëpp itam nu jëme ko rek ci jàng alquran jàng xasaayit feek bis ba salaatu fi kulli sahrin wa fi safar همالي هلا ماهن ما الأبس والسفر